are bu baax ah, di leen wax seen seen baa ngi noonu nga xam ne mooy Kun Fayakoun TV bépp feebar boo xamee ni dafa nekk si doomu aadama ba mu des damm damm incha allah rabbi booy ñëwee si cabinet bi daan la ci taxaw bu baax beneen bi nga xam ne ñoom ñoo wàllu foroote yi ak wàllu jaaro yi ak wàllu ndomba yi lépp kon mi si kër gi boo leen ñëwee rek incha allah rabbi daan la si taxaw bu baax ak jubóole yi nga xam ne ne daa trois jours la daa vingt quatre yëpp mi ngi si ak fas yi nga xam ne mooy mooy faj ndigg yi metti ak yax yi metti ak wàllu neer yëpp kon mi ngi fi incha allahu rabbi tey nag ñu ñëwaat joxewaat bonus bi nga xam ne ne moom la ñuy joxe ak toujours tey si salaatu ala nabi si baatu sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad bi nga xam ne def gis la sallallahu ala muhammad tey bii ñuy joxe 594 mu tolloog fii samoo min wa xamimin képp ki nga xam ne da nga bëgg wërsëg gane si la wërsëg bu baree bari bari ñëw si say loxo waaw na fexe saa boo jullee waxtu nga si sikkar sallallahu ala muhammad 594 fii samoomin wa hamimin nga def ko 594 wala nga jàng surtout wàq ba agsi foofu nga jàng 594 wallahi doo tàggoo xaalis doo tàggoo wërsëg ah loolu nag jox nañ ko jaamu yàlla yépp pour ñu mën see jariñu incha allahu rabbi